tey laa lay yóbbu fu sori fii mu xam ni maag yow doo nga lay doon ndax ni may gisee ni gisee noonu lañu mu tee man ak ñoom loolu boo ko defee ci beeg te xam ni dafay li baax loolu moo ci gën fulla ak fayda moom oh mais fulla fayda yow ëllëg yow mu فلا فايدة مؤمن فلا فايدة yow yow ñu dee. asalaamaaleykum ngi nuyu waa Kër Moussa yëpp ci Kër Moussa TV waaw ñun Baye Sow waaw ñun Kër Sène ay ñëw ay blouson ay blouse de sport yëpp dañ koy ñëw ba ci école ak lépp waaw lu original lu baax lu dëgër la ñuy def lépp consommé consommé local la lépp ñun ñoo koy defar fii. amul dara loo xam dañ koy jéggaani tubaab bi lépp ñoo koy def loo bëgg ci mooy ak loo bëgg ci blouse boo ñëwee ñu defaral la blouson tamit dañ koy ñaw ba ci armée bi fépp loo bëgg ñu defaral la école yeeg tout lépp dañ koy defar original noo ko bëggee noonu lañ la koy defaral même couleur couleur boo bëgg dañ la koy defaral. waaw dañoo indiwaat modelu 2002 bi moom la indiwaat parce que sénégalais yi dañ moom la ñu bëggaat ñu di leen koy defaral di leen ci defaral yu original yoo xamante ni. nit ñi sax ñu ngi koy jaawale est-ce que nekkul yi dafa jógee ci biti mais lépp fii lañ ko defaree lépp waaw ñun Kër Moussa lañ nekk di defar lu rafet di defar lu originalé waaw ñu dëkk dakaar sax ñu ngi jógee dakaar di ñëw Kër Moussa fii di commandé waaw non lépp fii lañ koy defee yow boo ñëwee li nga bëgg rek lañ ngay wax ñu defalee la ko lépp fii folokee lépp boo bëggee lépp loo bëgg daal dañ defaral la ko waaw bu nekkee ensemble blouson bi ñu ngi koy defarale quinze mille bu nekkee ensemble moyen bi ñu koy defaree 6000 bu dé bu débat bi ñu koy defaree 5000 quoi bu nekkee 5 pièces dañ koy defaree ba 25000 quoi waaw mook flocage bi yëpp waaw. waaw ñu daw ñew fi Kof sen bu ñëwee lepp luñu bëgg dina leen ko defal ñu supporter sen équipe bu baax ñu gagné inshallah Et numéro téléphone bi mi ngi nekk 77 493 87 waaw 77 493 87. ñu ngi côté monument lañ nekk avant ngay jégg dóor daan bu mu bi waaw foofu lañ nekk ku ñëw ku fi ñëw di ñu fekk waaw. 24 heures sur 24 dañuy dóor waaw heure boo ñëwee di ñu fekk waaw. waaw ñu jël ko ñu feete ko ñun ñëpp si jaam ak salaam.